ba xam nga Karim il est dans la dans sa logique depuis que mu génn Sénégal ba léegi il parle avec les Sénégalais événement bu am Karim wax na ak Sénégalais yi lu mënti xew Sénégal Karim wax na ak Sénégalais yi Covid 19 bi mu ñëwee Karim participé na si si si soutien boobu nga xam ne. Mm-hmm. effort de solidarité bi bi nga xam ne réew mi soxla woon na ko. léegi nag chaîne YouTube bi ñu ubbi démb c' la continuité de action bi ñu nekk vous l' avez dit à l'heure ñun en bokku ñu woon ci élection présidentielle yi parce que dañu jàppoon ni suñu candidat mooy muy Karim Meïssa am amuñu woon plan B am amuñu woon plan C amuñu woon plan Z ba fii ñu nekk nii ci loolu lañ nekk amuñu plan B amuñu plan Z Karim mooy suñu candidat léegi nag xëy na li xew deux mille dix neuf ak li xew deux mille vingt quatre du benn. Mhm. ndax contexte lu bari amoon na fi ndax deux mille dix neuf ñun demuñu woon ci dialogue bi. demuñu woon ci dialogue bi dañoo gëmoon ne suñ candidature dafa ko war dafa waroon jàll parce que en réalité bi ñuy condamné Karim juge bi prononcé wul dara ci droit yi. Mhm. kon en principe waroon na nekk candidat. ñu dëgër ni moom mooy nekk suñu candidat mu jaral ñu ñu bañ a dem élection. Mhm. mu baral ñu ñu perte toog te ku nekk xam na ni parti dañ koy créer pour. outi conquête ak gestion pouvoir mhm. léegi nag deux mille dix deux mille vingt quatre bi changé na ndax dem nañ ci dialogue bi premier acte bi ñu li ñu gënoon a yóbbu ci dialogue bi mooy ñu acte la révision du procès de Karim te loolu am nañ ko ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne yëpp dañ ko dañ ko doon jooyanti. Mm-hmm. ci la ñuy sax profité di di di wax président Macky Sall moom la mu defoon ni ni président Wade na dem indi ministre de l' intérieur boo xam ne du bokk ci benn parti. wala mu créé ministre waa ministre boo xam ne day chargé wu des élections lool la ñuy soxla. Ah. Karim nag mi ngi ci yoon bi di ñëw. Mm-hmm. ndax ñu ngi suivre suñu procédure xam nga PDS appareil la. appareil la boo xam ni damay faral di wax ni li ko dal 2012 ak léegi amul benn parti bu mu mënoon dal nga taxaw